monsieur le ministre di dalal di la dalal di dalal say naataango yi nga àndal di nuyu mais chers euh, collègues députés euh, monsieur le ministre question bu may njëkk a mooy est-ce que Ziguinchor fait partie du Sénégal pourquoi je le dis après avoir parcouru le, le rapport nullement gisuma fu ñu euh, bindee le département de Ziguinchor li lañ fa def comme lampadaire ou bien euh, électrification rurale parce que si je me souviens bien l'année dernière dama ko wax waxaat ko su ma ñëwee si arrondissement de gis sur les vingt cinq villages deux sont électrifiés te lu ci gën a metti mooy monsieur le ministre mooy euh, haute tension bi day traverser les villages comme Bafikan Dialan Dioher et Kalayan et cetera pour aller desservir à Oussouye et Cap donc lan lañ la fa tegal des des des poteaux depuis des années et des années jusqu'à présent gisuñu dara ma ñëw dans l'arrondissement de Niaguis sur les 46 villages 19 son électrifiés jusqu'à présent ils n'ont rien vu bu ma jëlee commune commune de de de Potopa comme Mawa euh, Niabina Kamarakunda et tout ça sont ce ne sont pas c'est des villages qui ne sont pas électrifiés ñu jël ay poteaux teg ko des années et des années monsieur le ministre j'ose espérer avec votre votre arrivée di nga di nga jéem a réparer cette injustice parce que c'est des villageois c'est des sénégalais comme les autres donc tey su ma toogee fii di dé di dégg mais mais autres honorables députés di naan euh, euh, électrification rurale bi euh, tout le monde en a c'est regrettable nit ki mën nga xam sa sa commune mais mënoo xam département jàmbur tu ne peux être au four et au moulin ñoom ils représentent ici leur département mais man aussi je représente le département de Ziguinchor donc maa gën a xam je suis très bien placée pour wax la li fa am ak li fa amul on ne peut pas faire des politiques politiciennes loolu nañ ko xaw a bàyyi monsieur le ministre di wax ne que les lampadaires au moins suñu mënul bu ñu mënul électrifier mais si tu peux les doter des des lampadaires au moins dina xaw a euh, wàññi tuuti nga xam ne mooy injustice bi di wax ne que le boulevard de 54 mètres qui est dans ma commune au niveau de Ziguinchor foofu aussi ko manqué que waxoon naa ko wax waxaat ko parce que c'est une route nationale bi nga xam ne moom mooy dem vers la Guinée-Bissau en tout cas monsieur le ministre en tout cas j'ose espérer daal injustice bi fi nekk vraiment di nga ko jéem a réparer parce que commune de département de Ziguinchor fait partie du Sénégal te c'est les yu nekk foofu aussi bëgg nañu gis seen bopp ci électrification rurale yi ngay wax je vous remercie